waaw cheikh na cheikh Saadu Bou benn yool ana baaraam yi ñaari yool cheikh na cheikh Saadu Bou ñetti yool ay wa ba yool ba ñeenu yool neew ba jóg toog wali yoo nga ngoral bi salaamaaleykum amante not Dakar Buzz ñu leen di nuyu di leen siyaar di am mbégte jàkkaarloo waat ak yéen seen émission mag bii ndaaraan ci biir goxam ndaaraan ci biir goxam tey mu seet si kenn koo xam ne li ma naan saa ba ko déggee rek sa dellu foofu nga xam ne moo naan li ma naan mooy Nimzaat li ma naan mooy mooy Ngumba Ngeewul zone boobu rek turu Xaadiya ma tuddee ñaar joor yooyu rek mën nga koo dégg ba ci fi nga xam ne rek mooy Canaba ak fépp rek këru diine yi muy Cheikh Modou Mboub sopp na bi di ko xam ne tubaarkàlla macha allah saa bu déggee nga saa boo déggee mooy rek nga xam ne ndaanaan wax na Cheikh Modou maa ngi lay nuyu. Eh, asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh baado aus billahi min asheitan rajim bisimillahi rahmaani rahim rabbi srah li sadri wa yassir li amri wahlu uqdatan min lisani yafqahu qawli cheikh eh, eh, Mouhamed Fadel ma aleykum asalaam wa rahmatullahi taala wa barakatuh cheikh Modou Mbuub tey émission bi nga xam ne mooy ndaanaan bi ko xam seet si la war a waxtaan yow ci lu bari ci carrière bi ci jaar-jaar bi ak li dem bi réew mi mais laataa loolu dama bëgg xam kan mooy cheikh Modou Mbuub waaw cheikh Modou Mbuub taalibe la dong bu juddoo ndakaaru eh, am huit ans ñu yóbbu kon ndànd ci Cheikh Hassana doomu Cheikh Dieye doomu Cheikh Mouhamed Limam doomu Cheikh na Cheikh Mouhamed Fadel ma def fa un an un an et demi naar yi ñëw ma jóge fa ñu yóbbu ma nguraan eh, nguraan nag falaa defe lépp ndax dëkk boo def fukki lu ëpp fukki at mhm. defe naa ne lu bëri fa ko defee mhm. falaa def lu daara falaa jànge alquran mm-hmm. eh, falaay jànge lii di tagg yonent bi donte dama ko dond ci samay wayjur mm-hmm. ba ñëw fii ma toll tey mm-hmm. eh, di ko gërëme nag bu baax ginnaaw bu ma ziyaaree bu baax a baax a baax a baax moom laa waroon a jiital sunu xalif général de tous les xaadar muy cheikh aya doomu cheikh Talibou doomu cheikh na cheikh Saad Bou Euh, di ko ñaanal yàlla yàlla na yàlla yokk wéram te guddal ak fanam noonu lay jàllee ba ci xadra ba ci nguraan di suñu ëtt uh-huh. di fa ñaanal bu baax tey ziyaare cheikh naa mamadou ci gën ko xam ci cheikh saad bu uh-huh. di doomu mamadou cheikh uh-huh. di doomu cheikh de calaw di xalifa cheikh de calaw ak porte parole kër ga di sunu baay di sunu wasila di sunu lépp di alaaji Cheikh Makhtar Seck bu Nguraan ah, waaye jaar jaar bi daal mhm. Nguraan la ñu jaar mhm. ndax bi ñuy ndaw mhm. boo amee ku am huit ans ñu yóbbu ci bërëb defe naa ne bërëb boobu ngay gën a miin fépp foo am ci àdduna te foofu la ñu jaar ci nguraan ba ni ñu jàngee alquran ba ni ñu jàngee lii ñuy def tey ba tey ñëw ndakaaru gi jaar nañ tamit rue 1 liggéey loolu ñu naan électronique oto mm-hmm. euh, Angle Blaise Diagne ma ciy gërëm sama patron mm-hmm. euh, Ismaïla faal di ko ñaanal yàlla yàlla na yàlla guddal fanam euh, ba tey daal ñu ngi nii mm-hmm. nekk ci waar wi waar wi mooy tagg yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waar wi mooy tagg yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fa leen di jaare du nuyu waale waa Nguraan di nuyu Ngumba Ngeew di nuyu itam ki mu tudd léegi mu Cheikh Makhtar di ku baax koo xam ne li ma naan ambassadeur jeunesse bi la di ku baax di ko am cër ci suñu borom tey nag li ma naan saxaar bu jubee gaar day boo seetsee ku mel ne Cheikh Modou Mboup da ngay léemu jotaay bi yëkkat tur yàlla bi ñu bàkk tabalay tuuti yaa rabbana ya wa ibal muraadi fa hablana ya rabbana al muraadi yow yàlla di lana yaa rabbana bi axati asiq lana yaa rabbana dawlaati yow yàlla yow la ñuy ñaan yaa mën a maye yow yaa alima la daaw fil xulubi Mamadou Lamine axfir lana yaa rabbana zunubi yow dongo ante lazi rahmanu kullu xalqi iftax lana ya rabbana larzaqi ey bi jaayi sayyidil imaami rabbi boo ko déggati joxoñal loxo baaraam ne kooku mooy sayyiduna Muhammad bi jaayi sayyidil imaami arabi wa ajami badru hashimi wa bi xuraysi seydil juusi malak lana ya rabbana nufuusi cheikh na cheikh saadu libi neena aba bakar umaru faaru xisaalatu sadaadatu sadiqi wa bi jay usman zi nurini ajalana maqaama aliyin kooku bi jaayi Faatimal Batuul wa bindiyaa Muhammadu Rasulallaahi wa bi Xuseyni wa Xasana bi Abdillaahi kaamili bi Cheikhina Jeylaani Abdul Xaadiri ay gër yonen yaale moom moo a way moom sayyidul awwalina wal axirina ngir gaa nga madinaay nelaw bu la yàlla ni ku ma gën a waale mbaa ku ma gën a bëgg ne ko sayyiduna muhammadu rasulallah yàlla ko njëkk a tëgg ci alxuraan ba tax na ku ko tëgg da ngay barkeelu moom sang ba ca madina moo ne ko wa innaka laala xuluqil azim wa bil muminina rauf rahim moom muhammadu rasulillahi yàlla ko njëkk a tagg ci alquranul karim ku ko tagg da ngay barkeelu yàlla nee na ko wa ma arsalnaaka ila kaafata linnaasi waaye buur yàlla yamul foofu wa ma arsalnaaka ila rahmatan lil alamin yow sayduna muhammad eey nee naa la ku la gën jikoo la gën te moonu gën jikoo moonu gën leeg baay moom yent yàlla maamet wa innaka la ala xuluqil azim wa bil muminina raufun rahim ay gër yanen yane déggal maa mi seexal ba xayda doomi saxsat bu cibi doomi cheikh mohamed axub doomi seexal adrame bani cheikh mohamed fadal kooku xisalani woowe yaayam nafisatu mooy maamam dagitu gar gunu tàbbal ci wilaaya ni sérif ba xayda mel kooku mooy maami cheikh mohamed lemin doomi cheikh cheybata doomi Cheikh Mohamed Fadal doomi Cheikh Mamin doomi Talib Al Khayar waaye kii mooy Mamin Serif Alwale Maane Njaay caatu Cheikh Mohamed Fadal kii mooy Mamin Cheikh Mahfou Ansar Mamin Serif yangoog Cheikh na Cheikh Saadu Lebi Cheikh na nee sama maam am na fukki jikko yu ma bokkul ak keneen xusa nabiyuna bi xadratul xisaal lam yaxtalul xatun wala lo zilaal وبيل الورد ما يخرج منه تمتني كذا سباب حقا an humam tani ba tax na bu daan dox daawul gersu na mi gisee kanamam noone lay gisee gannaaw ga man xal foo yara waaye kama yaral amaam tanaamu ay nawa waxal bu laayu naam moom yonent yàlla Muhammad moomu lam yarta sawaabul xatun wa wasaabiw ولid almaktunan ilaya tabia taarifo mbaa xam ngeen waa ji nelaw ci yadina taarifo dawaabu xina yarkabu taati ilay salatan la turxabu yonen juluso yaalul julusu jalla saay géer faadal moo ku dégg ni nga waaye rek li ma naan sàq mi daal moog métier yam su moo ko jëlo sonal <laughs> ku dégg ni nga waaye xam ni làmbatu ndax dama naan lapp taake taakay a laaj seex Mbuubay sama baay rek doy na yaakaar naa ne ay way ci moom la yam waaye boo xoolee loolu doylu ndax seex Mbuub waaram la def waaye ku dégg ni nga waaye xam ne ndaanaan nga ñu ngi ñaan yàlla lafa la cat wéral baat bi sàmm la mais way kañ la dikkee kañ nga gëm dëgg nag ni actuellement way mi ngi ko commencé dugg waaw Cheikh euh, way moom Euh, daanaka mën naa ne danu koo judduwaale. danoo juddu fekk bàyyi di tagg yonant bi. sallallahu alayhi wa sallam. Mm, juddu rek gis ko muy taxaw nguraan di fa di fa di fa def lu dara jarul. Mm-hmm. ak ci àddina bi yëpp. Mm-hmm. maa ngi rappelé wu sama yaay daf may faral di wax naan ma su ma saan a li laaj xale yow loo bëgg a doon. ñi naan man président laa bëgg a doon. ñi naan man député ñii di wax ku nekk di wax li nga bëgg a doon. Mhm. man dama daan wax naan man de damaa bëgg a nekk tàggkat yonent comme sama papa. xam naa nag euh, loolu moo ma topp. ndax mhm. góor gi am na ay doom. Mhm. waaye yàlla dogal ci kenn moo ciy tàgg yonent bi muy man. te loolu ndimbalal sunu borom la dama ko koy sant di ko ko gërëmee. waaye tàgg yonent bi daal fi ñu ko gën a yëge yëg yëg. mooy nag bi ñu tàbbee nguraan. ndax je me rappelle très bien euh, bu nu mësaan nekk ci daara ji dañ daan dëppantu ay paan ak ay ak ay pot mm-hmm. Mm-hmm. may way xamdan liman daa hamdan liman daa ila duwaa'i wa faddala liman duwaawu bil jalal nasiyama yawmal axir hamdan liman daa ila la ilaha illallah duwaa'i wa faddala liman daawu bil jalal nasiyama cheikh na neena suma salaatu wa salaam ala rasulu zil anam wa ali wa sahbil kiram aydara la siyama yawm al akhir hamdan liman la ilaha ndesal wa fadala liman da bil jala aydara la siyama ndeysaan fadal fii laa daan lii laa daan way ndeysaan ñu këpp paan yi këpp si way may may koy ràmbal nii waaw <laughs> nii laa jànge way xasida bii laa njëkk jàng ci xasida ndax je me rappelle bi daf ma bi mu xamee ne bëgg naa yëf yi mhm. te daf ma daan wax naan ma léegi boo yeggee saar sàngam mhm. dinaa la bindal benn xasida mhm. ndax kër gi dafa amoon diwaan bu rëy bu fa maam Cheikh day calaw bàyyi diwaan boobu boo dafa mujj sax boo ko yëkkatee sax mhm. fooy yi di damm ndax mag màgget waaye ci sëñ bi dajalewaat ko ñu mhm. bindaat ko ba ba mu leer ci lañ doon jàng xasida yi je aussi <laughs> ci ba léegi ñu ngi ci way waaw eh, ndeysaan ñi nga xam ne tey lu doy waar nag laa lay bëgg a wax parce que dafa am xale yu dëkkoon mexe ak daaru dañ daan dem ci àll ba rëbb ay picc ak ay pitax bu ñu ñëwee togg ko soos def gàmmu quartier bi gàmmu euh, gox bi man maa ko daan taxaw te booba euh, gone laa neuf ans maa ko daan taxaw léegi ndeysaan ñu jël mbege yi picc yi lañ may toggalee reer mbege yi la ñuy jël di ko dawal bu ñëwee ba ci buntu kër gi kir mbege yi kenn du dégg ci biir kër gi ndax mbege yu bari picc yi mooy nekk reeru jànkat bi rek reeru jànkat bi ñu ne jànkat bi la ñuy jël si eh. sëñ bi mos na ma cee dóor dóor yu metti maa ngi koy siyaare <laughs> ndax moom way au début daf ma ko daan tere. ndeysaan buñ ma ñu jël si ma buñ ñëwee ñu dalal ma ci nekk. waaye li garaaw mooy. Uh-huh. tante bi ay mbuus la ñu takkale ba def ko tante bu xam ne. <laughs> yaa may dégg ma daal di ñëw waaye li garaaw mooy dama reer ba moom. reer naa ko dama ne ma jaaxal reeru jànkat bu ñu di ay picc ndax jànkat dana suur ba amul ax mu jàngee. <laughs> ay picc ay picc ak pitax la ñu rëbb ndeysaan ñoom taar la jaan. ndeysaan ñoom moo di yëmbal xale mm-hmm. yooyu Aline. Mm-hmm. tey jii ñooñu. ñoo formé sama groupe soppay Cheikh Modou. macha allah ma ci nuyu professeur Makhtar Ladiane. Mm. di ko ñaanal yàlla na ko yàlla jàppale bu baax. Mm. ndax moom mm. mooy président soppe yi. te wax dëgg yàlla mi ngi ciy bay waaram. baam plus tard que démb rek. Mhm. ñu ngi déggante ci ay projet ndax lu ci nekk rek. Mhm. yàlla day feeñ ay mbiram lay feeñal. Ah, waaw suñu borom suñu borom ay mbiram lay feeñal. Mhm. ndax démb la am ku ma woo. dama lépp luy média léegi. dama ko bëgg engage ci yow. Euh, pour visibilité bi gën a am doole. ma boole ko maxtaar ñu waxtaan ci waxtaan bu yàgg yàgg. loolu nag su mbiru suñu borom la. waaye ma ko ciy sant bu baax moom maxtaar la jaan ndax jéego yu am solo la ci dox. donc nag loolu moo nekkoon jaar jaar yi. ba nag 1995. non 1994. 94 nag laa njëkk a téye micro. ci bâche bu mag. ñu ñu ñu ñu mbooloo mi wër ma may tagg yonent bi. foofu loolu nguraan la woon muy année bi Cheikh Makhtar njëkk a dem jóge boobu moom Cheikh Makhtar ci boppam. xamul ne ndax dama doon làqu ci di way. bi xamul ne woon man noonu laa mel ci ay way mhm. sama papa mi ma sukk jur mhm. toog na ci ci jamono yooyu mhm. benn xaritam ne ko waa Cheikh yow ni nga mënee tagg yonent bi mbaa am nga doom ju la ju la awu ci tagg yonent bi sama papa ne ko malheureusement nag man sama doom yi kenn taggu ci yonent bi ndax boobu xamul woon ni ma nekkee waaye keroog bi mu ñëwee yéew ma ci bâche bi gis ma may tagg yonent bi sama papa dafa yendoo jooy jour boobu waaw foofu daal laa njëkk a téye micro. ndeysaan tagg dëggantaan yéen foofu la njëkk a téye micro fa laa jaar sax di nuyu Mama Yacine di nuyu Papa Gueye waaye di nuyu nag képp ko xam ne mooy seex naa Mbaye tey lii ma naan danoo dem diggante diggante danoo dem maareen tey danoo dem gaa maareen ndax kii ma seet si tey li ma naan li ma naan maamam ay maamam Faris lan mm-hmm. maamam ñoo daan def maamam ñu maamam ñoo mooy borom Faris alxuraan yi mm-hmm. Aliou Lam mbaayam la kenn koo xam ne Sëñ Tuubaa da daan wax te bu ñuy masaan wax Sëñ Tuubaa nee na ma loolu mooy benn ci bi nga xam ne moom lañu lii rek mm-hmm. Modou li ma ci tegaat mooy balaa wàcc ci réew mi muy coronavirus ci lu doy waar. jaaxal àdduna bi. jaaxal réew mi yow ngay tàggatu yonent bi te kon nga xam ne période bi daaw am jot. conférence yi ñu ngi lay xëccoo ak religieux yi nga xam ne yëpp ñu mooy mu ngi jëm ci koor gi. loolu am tey président jéem a décret ne dafa dakkaloo lépp noo ko dundee. waaw dañuy ñaan d'abord di masawu àddina bi yëpp. ndax euh, yëf yi ci àddina bi yëpp la dal. Mm-hmm. donc àddina bi yëpp la ñuy masawu. Mm-hmm. leen ñaanal yàlla di ñaanal sunu bopp yàlla na yàlla tegg fi mbas mi amiin waaye mbas bu ñëwee cim cim réew yonent yàlla Muhammad dafa jàngale yonent bi dani mhm. su la fekkee ci dëkk mhm. bul buuse ca dëkk ba mhm. bul tukki boo déggee ñu naan ay cas importe loolu moo ko waral loolu yonent bi jàngale woon na ko faadal bu yàgg dañoo toppul jàngaleem nee mbas bu la fekkee ci réew toogal ca réew moom la fekk yaa ngi may bu la fekkee génnoo sa réew bul génn sa réew. loolu la yonent bi jàngale woon. te loolu nag moom la ñu ñëwaat. ci loolu la ñëwaat. ndax fi mu toll nii tëj nañ frontière yi. kenn mënta dem kenn mënta dikk. lan moo tax. mbas mee tax. loolu nag gàllankoor àddina bi moo gàllankoor jullit. moo gàllankoor kudul jullit. moo gàllankoor mag moo gàllankoor ndaw. te ñun société la ci société la daal te ñun ci société bi lañ bokk mm-hmm. ñun tàggkatu yonent yi sallallahu alayhi wa sallam donc ñu nit ci sunu kaw la daal mm-hmm. ñu koy sante yàlla bu baax mm-hmm. ndax yàlla moom lu mu def moo gën lu mu deful tàggkatu yonent yi heure bii wax nga dëgg daaw ñu am jot man heure bi daan na fekk tëral naa samay planning de conférence yi ma am yëpp ndax nag yàlla suturaal na ma conférence yu mag yu bëri yu nekk fii ci Dakar ci sama loxo la nekk ma koy animé ma ci gërëm euh, ñu ku ci mel ne Adja Sagartal entente mm-hmm. féminine nga xam ne ñoo ma mm-hmm. may bie màkk mm-hmm. te ci loolu lañ ma ko may di leen animel conférence animel conférence bañ ni ma yow Cheikh Madou Mboup bie bi ñoo la ko may demal siyaare ji yonent bi ma ci ñaanal entente bi yëpp yàlla na yàlla faj seen aaju ñoom ñëpp waaye ñu jël ko nag ak euh, ak muñ ndax cheikh na cheikh saat bu sunu sëriñ nee na isa xaddallahu alayka ma xadda ayin lahu sihran jamilan warida maanaam bu la yàlla tegatee musiba mu dal ci sa kaw na fekk nga fegal ko muñ gu am solo muñ gu rafet loolu moo ñu dal ñun mais ak ñun dakkalee cérémonie yi ci sa mot bu ci lan lay dund waaw ci ci ci ci ci sant yàlla xam nga olof njaay dani mbéy la mu daan dundee ba sax sikkim mën na caa nekk ba dee waaye ku gëm ne yàlla gémmiñ gu mu xar def ci dara fadal am na ñoo xamante ni si ñoo gën a arriéré ci dëkk bi maanaam fa ñu nekk ku ne la fii nit dëkk na fi nga ni déedéet ku la fa yóbbu woon ne la nii lii nit a dëkk nga ni déedéet uhuh. seen wërsëg nga leen fay fekk uhuh. wa ma min daabatin ila ala allahi risquha uhuh. yàlla ku ci nekk sa wërsëg foo mën a nekk ci àddina bi dina la fekk jox fi yàlla la yàlla yàlla mu ngi ñuy mu ngi ñuy dimbali parce que wax dëgg yàlla joytuwuñ ko fenn ñu ngi toog fi ñu toog mm-hmm. jàpp suñu yàlla yor suñu kurus di ñaan yàlla mm-hmm. yàlla it di ñëw di ñu teral mm-hmm. ci barke yonent bi nag waaw demuñu fenn source de revenu yi ñu doon am mooy dem tagg yonent bi ñëw waaye lépp loo gis dafa am fu borom ci ci fu koy jaarale boo ko muñee nag toog di ko di di di jox ko sa lépp moom suñu borom mu téel la lépp ci moment boobu lañ toll ci moment boobu loon toll tey duma ma la téye wax ju du bari. Mm-hmm. parce que damaa bëgg tey ñu waxtaan ñu way. waaw moo tax damay bëgg nga delluwaat foofu rek ci way yi tuuti. waaw way yi dañuy nag. Euh, dugg nga may dégluwaat nag. waaw comme dañoo ne ci koor. Mm-hmm. damaa bëgg ñu ñu way Karbala tuuti. acca dem Karbala acca. Eh, la rabbana la ilaha illallah لا لا لا لا لا إله إلا الله ربنا لا إله إلا الله لا لا لا لا إله إلا الله واتلن تيام يولن مولم نابي fii la yàlla ak yonel waxoon di Karbala la ilaha illallah rabbana la ilaha illallah wa wa la nga Karbala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 ولا ولد لله المحبوب لا إله إلا الله la bay fii la yàlla ak yoneen waxool te moo di kaar balaa ولا ولد لله المخبى بلا إله إلا الله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 ëllëg du ñaaw ba ca gokaar balaa la la la la la déglu leen ma limal leen xale ya desoon ca Karbala ja umsatu hasana fukk lan woon ak juróom-ñaar fa minhum nekk na ca ñoom ñoo yële xaqu awlaadu nabi dëgg yàlla doomi sayduna Muhammad sallallahu alayhi wa Abdalaay ak Abbas ak Alioune Mamadou Pé maamam karamallahu wajjawaay yoon nen xale boobu ba muy dajeeg noon yi juróom benn at la amoon ñaa ko meeteel yëkkatee ko ko ca kaw fas waa jox ko jaasi boo ko seene jaawale koog maamam Muhammadu Rasulullaay ma leen ana Alioune bun Ousseynou bu ngeen ma xamul Ousseynou yi sama baay su ngeen ko xamul Alioune Abi Taalib ba ko jur ndax doo ko awlaadu nabi dëgg yàlla ñun ñooy doomi Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa a tax naa ko mbiru tax nan si baa tey ma dëbb leen i xeej tey ma jam leen adrab bi sayfi axna abi tey ma dëbb leen jaasi ba tey ma aar sama baay turibal xulaano tey jii laa leen door doori ndaw asnimil arab ndax maa ngi bokk ci bane asies rab bi ca biir noon ya rey ca ñoom ju ne ak te meer marwa dab ko eey xale ba gër su wasey nu baay ba naan ko yaa abib man mar naa ndaxam bu ma naa noon benn doq rek ba xol bi seey kon ma jeexal nooni ndax booba ay nawa bët ya gisatul dara atas ndax mar fa ab kii Ousseynou Mbaye ba jooy te naan ko alinte nga muñ ta dellu xeexi tey ji kenn du naan ci ñun waaye mu ña léegi nga day ak samaam rasulalaay mu naan la ci ay kaas doo marati yomal xiyaamati akbar xale bi delloo jabir noon yaa bare ci ñum juróom fukk waaye suma dara ba wow ñu dóor ko jaasi mu daano ca ginnaaw fas wa fadal bi muy daanu mi ngi naan ah, ah, za jaddi maa ngi janoog sama maam sayduna muhammad wa za jaddi maa ngi janoog sama maam alun abi talib wahada jaddani te maa ngi janoog sama maam Faatumata bintu rasulalaay xam ngeen ne noona banu ñoom ñi def ni al bayt rasul waa kër sayyiduna kon nag yoneen wuute na Ababakar wuute na kun ko fekke woon ëllëg du ñaaw ba ca ne moom mooy daanaan ci biir goxam ba tey ñu ngi ak Cheikh Modou Mbuub rek li ma naan way la ak waxtaan gis ngeen li mu way te ak muy Karbala di way wu doy waar te way woo xam ne bu la ko firilee sax sa yaram day daw nga xam ne noon yàgg na ci réew mi noonu du fi jóg yàlla na jàll musal cunuy noon te sàmm na te bàyyi na ci bëgg yonent bi seex Modou Mbuub li may dellusiwaat mooy mooy tagg yonent bi lan la la may lépp lépp ndax da am di daa u man israihu li matxihi xatxan masala cheikhna cheikh saad bu sunu wasila yàlla na ko yàlla fayal tagg yonent bi dafa bokk dafa bokk ci ci ci garaat yi gën a kawe alaaji abdu nee na boo bëggee kawe del tagg yonent bi waxasil dawaaman madaxa noxbatu hashimi ñu ne ko lu mu ne tanaalu lazi tabai min alfatqi wal yusri waaye nag bi fasta il yaa abdu maa dumta qaadiran ñu ne ko aha mu ne fa matqu rasulallahi min azamil zuxri tagg yonent bi lim mën a maye mooy da am jàmme àddina ak alaxira ndax yàlla dalay lay dig àddina fii bu neex parce que li ci nekk kenn xamu ko xëyoo gontoo yaa ngi dem màkk yaa ngi tukki ci ci àddina bi yëpp yaa ngi dundal sa njaboot yaa ngi dëkk fu baax tagg yonent bi moo ko mën a maye doo doo ku la gis yërëm la mhm. nit bu la xool rek am ci yow yërmande sopp la danoon ku la gis sax yërëm la mhm. dafa fekk ne sa tàgg yonent bi des na kuy tagg yonent bi mhm. kenn du ko xool du ko yërëm xoolal gaay xoolal njaase ñii ñëpp ci tàgg yonent bi lañ nekk kuy tàgg yonent bi ñu xool la rek di am ci yow yërmande xamal ne sa tàgg sayduna Muhammad des na te xoolal li ma lay wax xoolal ñiy tagg yonent bi xool leen xool seen melokaan bu ñu bu ñu doxee rek nga jox leen cëru ku yor ay milliards. loolu am na te sutura rek moo fi nekk. Mhm. loolu nag yàlla moo ñu koy defal tagg yont bi loolu la ñu may. ban réew nga nga njëkk a dem ci réew tubaab yi yëg tag fa yont bi. waaw ñu ngi njëkk a dem en 2013 Italie. Mhm. Italie la ñu njëkk a dem tagg fa yonent bi. sallallahu alayhi wa sallam. def def def gàmm ma ci ziare waale fédération xaadar bu cheikh na cheikh Saad bu bi nekk Bergamo di ci Italie yëpp sax cheikh Mahet Diop di président président bi wax dëgg yàlla at bu jot ñu renouveler seen kóolute ci man cheikh Modou Mboup ba ci date bi ñu mujj jàpp te mbas mi yàq ko at mu jot rek ñu ne cheikh Modou Mboup lañu bëgg mu ñëw ma ma ko taxaw ma koy taxawee di fa fekk sama frère sama xarit sama lépp muy Lamine Mboup moom foofu la nekk bu Cheikh Abdou Mboub di ko mën a tàgg yonent bi wa wax dëgg yàlla ñu àndandoo di ko def mhm. kon 2013 mhm. laa njëkk a dem Italie tagg yonent bi mhm. jóge fa dem France ci dëkk bu ñuy wax Vichy ak Clermont-Ferrand ma ci ziare Cheikh Adama bu baax a baax di sama xarit ni nga mel ci yonent bi ku ne xam ne sa diggante ak yonent bi nga bëgg ko lool keroog ba nga tiimee raw doom ba lan la def ci yow waaw keroog nag euh, Cheikh Mat <laughs> am naa yëg-yëg boo xam ne léegi nii rek da fekk maag duudu mi mhm. fii la ñu di ci waxtaan kooku bu ma ci nit di laaj sax mhm. wallahi day am lu sori lu nekk ci sama xol mhm, ndax euh, yonent bi sallallahu alayhi wa ku ko xamul rek moo koy bañ euh, waaye boo ko xamee dem ko di nga xam ne yàlla sàkkul kenn kenn kenn kenn kenn kenn ku dul yonent bi ñi des ñëpp ci barke yonent bi la leen sàkk hmm. Fadel dama balaa ma wax tiim gi ma dem ba tiim ko hmm. dama nekk France hmm. ah safurlaa Italie daaw benn association woo ma ca France ne ma dama bëgg dañoo bëgg nga jàngal ñu la 4 mai dañoo bëgg nga jàngal ñu la 4 mai. Mhm. fii ci France. Mhm. Paris. Mhm. ma ne leen d' accord incha allahu maa ngi itali waaye su ma ñëwee rek ñu gën ci waxtaan. kon ne xam na ni euro yi neex na ak neex na. waaye noonu Adja Sagar envoyé ma message WhatsApp. dama lay wax billet màkk bi fu mu jaar. envoyé message WhatsApp. ne ma Cheikh Modou mu ne ma sa conférence bi de. xam naa ne yaa ngi France waaye le 4 mai la ni daal xaalis neex na lool waaye kóllëre moo ko waaw ndax ñoom 15 ans laa ànd ak ñoom macha allah bañ koy def ci buntu kër ga maak sama xale yu gore yi mhm. bañ koy def ci buntu kër ga mhm. bañ ko yóbboo Sorano mhm. jëlewaat ko Sorano indi ko ci terminus bi yëf yi di dox di dox di dox di dox ba mu mat quinze ans mu bokk ci conférence yi gën a rëy ci dakaar bi ñu ma bi ma nee woon daal naa dagg bi ñibbi ndax wax dëgg yàlla kóllëre dara dàqu te ginnaaw lay te yàlla nee na uufu bil aadi ndax innal aada kaana mafuula ma daal di ñibbisi euh, daal di daal di ñëw bàyyi euro yaag yëpp France ñëw waaye bi ma ñibbisee saan li ci gën a garaaw mooy maire yi koo ci dajal rek yée ñun de doon doon bind pétition pour envoyer la ko pour nga mën a ñëw ma ne leen ah booba de xam ngeen ne yéen lu ngeen def duma ko tardé su ma fekkee ci àddina mm-hmm. ñu doxal ba jur conférence ñu jàng conférence ba jour bi may def grand plateau ci Sen mm-hmm. ma déparé fii mm-hmm. jëm grand plateau Adja Sagar wooma ne ma moo du jaaral ci kër gi man ko man de xam nga ne damaa mën a tardé tardé naa bàyyil ma dem rek ba wàññeeku mu ne mënoo jaaral ci kër gi rek c'est urgent ma jaar fa mu ne ma association bi day nee nañ billet màkk bii fi génn. Mm-hmm. yow lañ koy jox. macha allah keroog am naa mbégte moo xam ne. mag yàlla rek ku ko xam yàlla na leen yàlla fay. amiin barke ma xama ci rek ne kóllëre. Mm-hmm. sàmm sa ngor. Mm-hmm. mën na laa may sax loo foogewul ku ma ne woon tey bu ma bàyyee foofu programme France ñëw Sénégal dinaa fi am billet màkk. <laughs> duma ko gëm. dama koy def dama ko def ci kóllëre rek. ko def ci ngir yàlla ak yonent bi. bi ma ñëwee yàlla fayee ma billet màkk boobu. Euh, ma dem nag Medina man Fadel fii laa commencé. Mhm. di am yëg-yëg. Mhm, ndeysaan aéroport. Mhm. laa commencé di am yëg-yëg. ba ni may wàccee Jidda. ba ni may jëlaate jëlaatee euh, bus yi. dem na war bi ma duggee nag Medinatul Munawar ba jàkkaarloog jàkka ji nag moom jumaa ji moom. Oh. foofu nag wax dëgg yàlla mënatuma woon a téye sama bopp. foofu moom yëg naa fa lu doy waar. waaw yëg naa fa lu xam ne. yëg naa fa loo xam ne jullit jullit bu bëgg yonent bi sallallahu alayhi bu tiimee bërëb boobu war naa war naa yëg lu raw sax li ma yëg mhm. ndax mënuñu ko wax mhm. ñun mënuñu wax melokaan bi mhm. mënuñu wax rafetaay bi mënuñu wax daraja ji mënuñu wax dara li ñu mën a wax rek mooy ki ki gën ñëpp moo tëdd fii yow loolu rek nga mën a wax xam nga damay dégg Moussa Mbaye di wax wax bu wax bu doy waar yàlla na ko yàlla fay. amiin wax wax bu doy waar. Mm-hmm. ndekete yoo. li ma lay way lépp yaa nekk nii. ndeysaan mm-hmm. li ma lay way lépp ndekete yow yaa tëdd nii yow Muhammadu Rasulullah. wax boobu dañ koy tuutal waaye ak rëy. ndax man bi ma ko tiimee loolu laa sa loolu la sama xel njëkk a ñëw. ndekete yoo yow yaa yow yaa nekk nii. yow ñun wayuñu la dara. Oh. ñun bàkkuñu la dara ñun xamuñu dara ci yow. Mm-hmm. yow yàlla mi la sàkk rek moo la xam. sallallahu alayhi wa sallam donc yëg-yëg bi ngay am moom. Mhm. munoo ko expliquer jàmm. c'est inexplicable. ndeysaan waaw mun ko expliquer du ma yàq sax émission bi ndax mi ngi ciy commencé dugal jooy parce que yonent bi moo mel noonu. boo ko tuddee rek képp ku am looy yëg rek dina am lu génn ci yow. mais nan comprendre ne xam ne yonent bee toll noonu ñu ñëw nag ci nga delluwaat ci wayu tuuti ñu war a ñëw ci projet yi. kon nag damay dem ci wayam rek. waaw bayti laay ku fa dem am baax ngir yoteel mbaa ku fa dem waaw am na yeneen tabaar lay lay la la ajaratu jaasin mbay gis neel ta ma bay joojo ak la meela waaw wala alaaji Cheikh moom neel ta ba yaleel sama may la meela wa wala ajaratu sagartal ala yonel saba ak saba ya wa wala ey majalal ngano السماء لا لا لا الحاج محمد جاي يا نرجس يقول سبا اي مولا بينا ولا Sëriñ Cheikh Makhtar gis na yoneel sa baay waaw yaay le meena waaw wala ak sa baab labayka allahumma labayka labayka la sharika laka labayka إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك بلا يلا يبا بيت الله الأرام شام من فادل بول مولو بول فيراتي بول خيلواتي بابا جمعة وفجولي بن راكا جنبلون الراكا زها من الرحمن تبديل alaaji ana yonent yàlla Muhammad ak saaba ya waaye bu la yàlla yóbboo baytil haram boo demee ba janoog yonent yàlla Muhammad waxal labbayka allahumma labbayka ya rasulullah labbayka allahumma bu la yàlla yóbboo baytil haram waxal labbayka يا اللهم لبيك يا رسول الله لبيك عبد الله بايم امينه مويا يوم لبيك اي اللهم لبيك يا رسول الله لبيك kon nag bay diraye arab ku la way yàlla gërëm na la جميلا لبا خباخير اي ما جالال غنو بغا جيسك يونال تبا ولا غير يونال تبا mbégte rek ba tey seen émission bi li ma naan waaye waxtaan la rek bu ñu cofee fii ba càkk rek ñu duggaat fee tey daal li naan diine jamono la moo du ñu gis nag ne at mu ne nga wootee Sorano euh, projet yi lan la waaw <coughs> guddi googu ñu ngi ko doon def guddi sargal sunu sang bi manjaata Fatou Mbeek manjaata nu Mbeek mbiri mhm. daaw ngoone jare ngoone borom xay noote dégg naa sax ko ci woy ne xam naa moom ngay tëjee. waaw xam naa wilaya moom moom la ñuy tëjee mhm. ndax euh, maam Cheikh de Calaw cheikhu cheikh na cheikh Saad bu la cheikh na cheikh Saad bu moo ko fekk ci teen feeñu ko mhm. mu topp ko ba gànnaar mu def ci moom li muy def ci moom mhm. def ko waliyu bu mat sëkk nag ndax dégg naa ci sama sëriñ Cheikh Makhtar yàlla na fi yàgg lool te wér sekk Malick Badji Ngourane muy wax ne maam Cheikh de Thialaw maam Cheikh Alioune baayam da ko bàyyi Cheikh Mata da ko mucc di sottil muy jàpp bi mu jàppee ba yegg si ci baaraamu sanqaleñ bii jëm ci baaraamu déy bi nee na maam Cheikh Alioune ne ko waa bàyyi awliyaay tamkin nu muy mel wala wu bu mat sëkk ci yàlla di lay wan ne defaru si ana Cheikh Saad mu ne ko nee na bi mu ko waxee loolu mu gis maam Cheikh de Thialaw commencé métamorphosé wu di changé caractère karaw bopp yi taxaw nee na bët yu xonq ba nee na man ma mujj ragal sama baay. nee na mu ne xineet ko Cheikh Aline awliyaay tamkin day maa ngi raxas sama baaraamu sànqalañ bi jëm ci baaraamu déy bi ci njàppali awliyaay tamkin mën na fee dem Chine am fa doom wala Inde am fa jabar am fa doom doom jooju juddu jàng mbooleem xam-xam yi mbooleem xeeti xam-xam yi ba ñëw jiite ñu tàkkusaan gi ñuy waaj julli mhm. lépp ci raxas ci rek nag man sa baay Cheikh de calaw de ci laa bokk waaye ak sa baay Cheikh Ibra maam Cheikh Ibrahima Fall waaw moo tax maam Cheikh Ibra mhm. kuy nattable ak wilaayam da ngaa xamul ndax sunu sëriñ wax nañu ko ñun mhm. waaw maam Cheikh na wax bi mu feebaree ba tëdd ndax balaa bi moo tax ma koy waxaale sax balaa bi am maam Cheikh bi mu feebaree ba tëdd feebaram bu yàgg tasanteeg Cheikh Ibra génn àdduna Ibrahima Fall yàlla yàlla yokk leeram fekk mu génn àddina mhm. nee doom yi ñëw ne ko waa Baye lan la mhm. mu ne ñu mu leen du dara Cheikh na Cheikh Saad bu ñëw na fi biig mhm. xamal na ni ma feebar bi duma ci dee waaye balaa yi daan am ci àdduna bi pour mu woyof ci jaam ñi maa daan gàddu lenn li Cheikh Ibra gàddu lenn li waaw bi ma génn bi mu génnee àddina nag poids bépp tegewaat ci sama kaw ndeysaan loolu mooy diis sama yaram wi nii ndeysaan sa maa njaata faatu ndeeg maa njaata ni mbeeg mbëri kenn moom <laughs> waaw euh, mhm. at mu jot mhm. guddi gu rëy mhm. guddi sargal maam Cheikh Dethialaw Seck ndax ñun dañoo juddu fekk mu nekk sëriñu maam maamaat maamaat ba ci kii toog Cheikh Dethialaw way sëriñu li mbay moo ngay dégg walaa li nga ca xabru ba ñu suul suulaale Cheikh Dethialaw man mii yow xam nga ne maam jee nga tëdd ca ca ca ca yow xam nga ne aatoo nga fa. ci nga ci laa juddu. Mhm. aw ma ku dul Cheikh day calaw mooy sama buntu. Mhm. ci kër Cheikh na Cheikh Saad Bou. teew ko nag laay defal at mu jot. Mhm. guddi di ko sargal ci Sorano. at bu jot waaw. moo waral ngay woote guddi gi at mu jot guddi guddi gu rëy waaw projet yi léegi ci lu mu jëmaat ci album ngay looy waajal fi ñu ni waaw nii maa ngi studio ñu ngi joué li nga fekk ni ñu koy joué ñu ngi joué mode tabala rythmique di jouer acoustique mhm. maa ngi studio di mhm. am son yu may liggéey mhm. pour bëgg mu génn fan yi incha allah euh, bëgg it bu génnee képp ku jullit nga kontaan ci ndax man lu tax sama liggéey duma ko parax paraxee euh, wayu jamono yi yu ci bëri wayu ma ko man dama xaw a particulier ci samay way parce que léegi tàgg yonent bi dafa am beneen tournure bu mu bëgg a jël foofu bëggoon naa ci sensibiliser tuuti tournure boobu mu jël nag mhm. nañ ci def attention mhm. ndax dégg naa Cheikh si almaktum muy wax ne mhm. yonent bi kenn du ko tagg ci sa xaal da koy tagg ci xaalam moom bu ko defee yàlla mën laa nangul mën nga ci am lu nekk nag waaye fay fii ak ëllëg moom ngay wut ci yenent bi sama sëriñ dana ma na nga ko def jaamu yàlla balaa nga ci wut xaalis mais tournure boobu mu jël euh, dafa xaw a folklore folklore de trop waaw Euh, neex na nag. Mhm. waaye nag nañuy dellu dellusiwaat tuuti ci démb. Mhm. comme ni ma def nii. Mhm. way Karbala way Béytilaay. am naa man moo neexoon fii léegi saal bi. bu baax yëngu léegi. xam naa loolu waaye am na yoo xamante ni si. da nga koy donc message la booy booy jàngal. ñi nga xam ne ñoo nekk ci yoon wi di ñëw. nañu nañu xoolaat euh, rythme folklorique bi. wàññi ko tuuti te xaw a dellu démb. message la boo xam ne képp kuy tagg yonent bi nag ci jàngee. ndax yonent bi yaakaar naa ne du fo. ndax yonente bi li ma naan soo ko dee tàgg te feeñul ci yow na nga xoolaat sa bopp tàgg yonente bi mi ngi mel ne xale bi nàmp di maq suuf ak xale bi nàmp te maqul suuf mm. boo xoolee dina am la xale bi nàmp te maqul suuf day taay waaw xale bi nàmp di maq suuf nag day mel ne man foo ko fekk jógoo ko daana ko koyen loolu moo ne ci yonente bi boo ko jàppee te boole koog leen mu wan la ni tubaarkàlla jàpp nga ma mm-hmm. léegi da ngay tàggatoo nag après ma tàggatoo ñu door nga tëjee woy nag waaw xanaa Fadel di kontaan mm-hmm. balaa tàggatoo sax noo gisee émission bii di di ndaanaan ci biir waaw ndaanaan ci biir goxam mm-hmm. eh, maa ngi ziyaare bu baax mm-hmm. eh, ajaratu Yacine Mbaye mm-hmm. émission bi mënta jeex te ziyaare wuñ ko mooy sunu jur moom sax lañ waroon ubbee waaye maa ngi koy ziyaare bu baax di ko ñaanal yàlla yal na yàlla yokk suturaam yokk ay xéewalam guddal fanam ndey ju baax ndey ju lii lépp liggéeyam ñun duñu dara mhm. liggéeyam moo nu indi fii tey mhm. di gërëm alaaji Cheikh Mbuub mhm. suñu baay di ko ñaanal yàlla gudd fan ak wér waaye di gërëm bu baax a baax suñu sëriñ suñu sang alaaji Cheikh Makhtar Seck borom juróomi xaale yi eh, di ko ñaanal yàlla yàlla na ko fi yàgg lool te wey moom dama ko wey woyu rëy dama ni ko fi nga juddoo fi nga yaroo fi nga màggee fi nga fekk baax defoo fi waxoo fi lu ñaaw dëgg-dëgg nag sama waji jàmbar nga ah fi nga yoroo fi nga màggee fi nga fekk baax defoo fi waxoo fi lu ñaaw dëgg-dëgg nag sama waji jàmbar nga moom laa ko loolu. mais lii mbaa dina bokk ci liggéey kenn. lii ci album bi la bokk. Ah, waaw yàlla na yàlla def mu gudd fan te ànd ak wér. barke maamam Cheikh Dey Calaw euh, di ziare surafaaw yëpp nag bàyyiwuma kenn képp ku yonent bi jur maa ngi ñëw ba ci yow di sukk samay oom di la ziar bàyyiwuma kenn bàyyiwuma kenn muy waa kër euh, Cheikh na Cheikh Mouhamed Fadel ak jokk ci Cheikh na Cheikh Saad bu direct ak fu Chérif nekk ci àddina bi rek maa ngi maa ngi sukk samay om ci say suuf di la ziara euh, di ziara bu baax a baax a baax a baax a baax ndax tàgge boo am jàppal diw sama xarit sama sang cheikh baxayda euh, euh, cheikh baxayda doomu cheikh saad bu chibi mhm. doomu cheikh mouhamed aqub doomu cheikh alxadrami doomu cheikh na cheikh mouhamed di sang boo xam ne daf maa bëgg lool mhm. ma lool ay taalibeem bëgg ma mhm. waaye ci laay ziyaare tamit ki nga xam ne mooy lépp ci man muy cheikh mouhamed lamine doomu cheikh mouhamed cheybata doomu cheikh mouhamed vadul moom nga xam ne ku ko gis gis ma ak mboolem ku cheikh na jur mhm. rawatina nag waa ngumba mhm. waa kër cheikh mhm. euh, cheikh al maxfu ndax ñun kër cheikh day calaw dañu ñëw njëkkati teg ñu ci loxo kër cheikh maxfu kon ñoom itam maa ngi leen di ziar bu baax di ci ziar chérif ba ak xalifa ba cheikh mohammed fadul ba ci alwali bàyyi wunu kenn kon nag ah kooku moom mooy sunu baay. waaye xam nga boo limee da ngay daal di bëgg lim kër gi yëpp te day yem yàgg. Mhm. moo tax ma tudd ñaari bopp xilaafa yi. Mhm. muy Cheikh Mouhamed Fadel. Mhm. ak Chérif Ba. di xalifa Cheikh Mouhamed Fadel. Cheikh Cheikh Mouhamed Fadel ñu ko ko xam ci Fadal. di xalifa Cheikh Al Mahfou. ñooñu boo leen tuddee rek tudd nga kër gi yëpp. Eh, di ñaan yàlla ci barke Seydina Muhammad. Eh, koor gi yàlla nañu ko woor ay at yu baree bari. yàlla nañu yàlla nangul sunu jaamu yàlla. yàlla na nu yàlla nangul suñu jaam yàlla yàlla na nu yàlla jéggal bàkkaar yi mbas mii yàlla na ko yàlla tegg ci àdduna bi mu jeex fi tàkk bañ bu ñuy waxte dañ atum corona ma ci barke Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa di gërëm nag ñi ma àndal mm-hmm. Mm-hmm. muy groupe sopp na bi mm-hmm. muy Njaase Mbay mii ak délégué mii nga xam ne léppam nguraan la ak Sadia mi nga xam ne boo tuddee Chérif Dieng Maarouf tudd euh, Buya tudd Cheikh Mouhamed Lamine seen mag ja tudd ko Ndiasse moom ku ne xam na sama diggante ak moom. junneeg 5000 waaw. jun ña junneeg 5000 la. waaw la benn la. Mhm. moom ñoo bokk kër gi. Mhm. sëñ bi jël ko teg ko ci sama loxo. Mhm. ne ma li yéen ñaar yomal xiyaam laa leen di laajaat seen wëllëre. xam nga loolu lu foor la. kon yàlla na yàlla barkeel di nuyu bu baax sama xarit sama soppe sama lépp. muy Doudou Mouhamed mii. daalibe Cheikh Baxidiwul Chibi nga xam ne yëf yi sax daf ko fee fekk dafa ñëwoon rek seet si ma ñëw soonu nii foofu ngeen ñëw yàlla na ko yàlla fay di jaare nag Dakar Buzz yëpp mm-hmm. di leen ñaanal mm-hmm. sit bu fi mës a nekk mm-hmm. yàlla na site bi ëpp ci doole amiin barke pour bokk de raisons amiin amiin amiin pour Dakar Buzz pour yow it Cheikh Mouhamed Fadil mii nga xam ne dangaa ñëw si yëf yi waaye bi nga ñëwee wàññi woo da ngaa yokk macha allah yàlla la yàlla yokk ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amin ci ñaan yi foofu lay jaaree rek di nuyoo waaye balaa ma nuyoo damay ñi nga xam ñoom la àndal muy Malick sama cadreur bi ak Hamza ak Amadou ñu yoo xam ne li ma ay l'infatigable lan bu ñuy liggéey dañuy liggéey xol te gis nga leen nii mais bu su image génnee nga xam ne tamata njab bu loxoti bokkul bokk noo ñeneen ñi ñuy ay ndaaraan nag may ñaan Dakar bu yàlla yokk ko di ñaan di wax ne émission ndaaraan ci biir goxam bi xaar leen ma ku ci ne li ci sa cër la ko jox ëllëg ngeen di ñëw mën maa leen fekk si jël leen wane leen seeni fan si gis leen ñi leen soppe gis leen képp koo xam ne bëggoon naa gis Cheikh Mbour boobu tey di nga ko gis xam naa ne du yàgg dara di ñaan jàmm ci réew mi di nuyu nag sama yaay euh, nday laam di ko ñaanal gudd fan ak wér ah, kale maa mbay mbay nuyu ci yaasin sa yaay ji waaye di nuyu nag mama yaasin nuyu mbugg leen képp nga tàmbalee ko ci ak ñoom ñanga mbay di nuyu képp koo xam ne yaa ngi doon bàyyi xel du nuyu Cheikh naa mbay jërë ngeen jëf leen jàmm ñu bàyyi Cheikh Mbour boobu tàggatoo ak way nag tey it Cheikh Demba wilaaya daa su ma saan di dekkal néew yaa Cheikh naa lay wax wali yoo su ma saan di dekkal sa at bu lay waaw waaw wali yoo daa wax leen wilaaya ya daa foor su di dekkal ne Cheikh Saar ba lay waawa wali yoo nga Quraan be e waaw su ma saana jóg di dekkal ne Cheikh Saar waa Seex Saad bu ay waay kii moo fi dekkal bay la jaay Seex Saad bu maam Cheikh Makhtar borom juróomi xaala yee Seex Saad bu maam Cheikh Makhtar borom juróomi xaala yee Seex Saad bu kaay leen lu woo ñëw leen lu woo aw shana shan sada bo benn yool ana baaraam yi ñaari yool shana shan sada bo ñetti yool ay wa ba juróomi yool ba ñeelu fukki yool leew ba jogo toog wali yoo nga goral be ay waayi suma saal na jóg di dekkal ne ya cheikh na lay waaw waaw ah wilaaya daa foor ay wilaaya daa foor wilaaya daa su ma saan di dégg li leen bu lay waa nga goraan bee eey su ma saan di dégg li na lay ah wilaaya daa foor su ma saan a jóg di dekkal ne Cheikh naa lay waa gaynde gaaga goraan be ay waayi su ma saan a jóg di dekkal ne Cheikh Saad bu lay waa waaw laajal ma nu muy dekkale Cheikh Modou Mboup nu muy dekkale laaj leen ma nu muy dekkale Cheikh Modou Mboup nu muy dekkale laaj leen ma nu muy dekkale xolal day woo sëriñam ba saadal wara ñeena fukki yool ñëw ba jóg wax maam mi ay waay suma saana jóg di dekkal ne Cheikh Saad ba lay waaw waaw loola waral saabu guddi nguran la nu jëm Cheikh Demba Barou sa ñaay ay waay guddi guddi nguran la nu jëm Cheikh Demba Barou sa ñaay ay waay guddi guddi nguran la nu jëm Cheikh Demba Barou sa ñaay ku bëgg ku bañ sama jox la sama yaram mi demba waaw cheikh na cheikh Saadu bu benn yool ana baaraam yi ñaari yool cheikh na cheikh bu ñetti yool ay wa ba ba ñeenu fukki yool néew ba jóg toog wali yoo nga ngoral